ñoo ngi ñaanal ñëpp yërmaande suñu borom ak njëggalam barkeb sëñ Tuubaa ñoo ngi jiital ci nuyoo bi kilifa yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaan suñu borom dolli ko sàmm dolli ko aar ba li ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yan ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét lu barakat Cheikhul Xadim di nuyu mboolem bokk yi ci jataay bi jaarale nuyoo bi sëriñ Ahmadou mi nekk ci bopp njabootu sëñ Modou Khary gépp di nuyu sëriñ Xaadim ci jataay bi di nuyu soxna Tayratu mi waral jataay bi di nuyu mbooleem njaboot gi aju ci famille bi ñëpp bàyyiwuñ kenn yal na yàlla sàmm te aar yal na suñu borom mottali mébati mag ña barakat Cheikhul Khadim ñun mottali yéene rek mooy sunu sunu liggéey mooy sunu fonction mott li yéene ndax sëñ Tuubaa wax ne lil Mustafa maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu yéene joojee cala cala dem bañ noppi koo gis kon sunu sunu taxawaay nun mooy mott li yéene ji moo tax mu wax ni suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahidu loola na ku ca teg sa tànk yaa ca yoon wa yàlla yàlla mottali barakat Cheikhul Khadim di soof sunuy kàddu rekk fii sëriñ Gana wàcce kàddoom mu mel ni waxtaan wi fa tabarakallah leer na nañ te jaaraat ci sax ndax du ko gën a lëndëmal ndax sëriñ Gana fa tabarakallah def na exposi bu am solo ci sëñ Modou Khary muy ay jaar-jaaram nit nag damay wax ni buñ koy nettali lu baax lu mu wut dañoo bëgg mu am jom ame ci aw fit ak nangoo jaar ci yoon wa wa kullan naqusu min anba'i rusul maa nu sabbitu bi fu'aadak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko sun borom doon nettali jaar-jaar yi ña ko jiitu mooy bëgg rek mu xam ni lim nekk dëgg la noonu nag ndonol mag ñi lañ yor te mag ñi ameel nañ leen bor mooy sunu weetee war nañ leen a ñaanal bu nu wettali ko war nañ leen a fàttali ko waxtaane leen ndax yàlla danoo nattu seen deret lañ yor dëkke seenub gent di tedd ci seenub liggéey di dund ci seen barke ndax toujours danaa wax ni barab boo fi mën a dem dàll ya bari fa ñuy booxante ka ñuy booxante ca biir yoonum nekku ci ña ko lëggéey ci armée li tëdd ñooñu nag waree su leen a fàtte war nañ di leen fàttaliku waxtu wu ci nekk waaye nag ñun ñëpp maase nañ xam ni li fi nekk suñ ngóore indiwu ko fi waaye sunug yaafus mënu koo yàq waaye sunug yaafus nag du jom kon war na noo laxasaayuwaat bu baax a baax ndax yàlla gënta baax ci démb yàlla gënta baax ci démb te yitte jure ji nga xamante ne ni moom la sëñ Gana doon waxtaane léegi teñ jël ci mag ñi sëñ Modou Khari waaw bismillah kon fiñ ci yemoon rekk mooy doon wax ni yàlla gën a baax ci démb mu mel ni kon suñu yéegalee sunu yitte ca yittey mag ñi faaw nu am ca cër yu kawe ngir suñ borom moon inna kadhalika najjisil muhsinin loolu nag mooy tax nu waxtaane mag ñi nu am ngir mën a fàttaliku seen pas-pas yu rëy mën a fàttaliku seen yitte ju kawe ja mën fàttaliku bu baax a baax seen pëstéef man caa roye itam ndax sëriñ bi soo wax ni wali raada ahbaban bihim uskirun nuska mooy sun borom wommatal na ma ay soppe yoo xamante ne ni ci laa leen di wan nu ñuy jàmmoo yàlla su nu déggee taxawaay suñ Moodu Xari dañuy daal di xam ni mboolem mag ñi daroon sëñ bi ñëpp taxawaay boobu rekk la yem ndax ñoo bokk genn keppaar guñ leen doon tàggate ñoo bokk itam kuñ ku leen doon yar kon ñoo nopp ñoo nàmpandoo te sëriñ bi daf daan wax ni soo amee ndey ju bari mu sow te muur lewut bu la nàmpalee ba nga fer boo ma xut suuf suñu borom mën na laa musal ci xiibon fa tabaarakallaa yooyu yëpp daje na ci Cheikhul Khadim te mag ñi mucc nañ ci maq suuf mooy lañ leen doon yare delluwaatuñ ca kon dafay mel ni loolu lépp am na lu ko waral am na baas am na fondation bu dëgër boo xamante ni nii ñun ñëpp war nañ ci am maase delluwaat ndax mag ñi seen taxawaay seen pas-pas seen yitte ju kawe am na fondation ndax Sëñ Tuubaa daf daan wax ni li fi nekk liggéeyum nday mayewu ko waaye de su ko jox ku ndeyam liggéeyu kon mel na ni bari na lu nu xañi ay cër te jàggante jigéen ñi ak yaafuusub góor ñi loolu moo tax li xew lu xew ndax bu nu delloo tuuti ci gannaaw maam maharam juri doom ñëpp baax loolu yombut te defaat leen jàngat bi ngeen xool mboolem ñi askanoo ci maaram nga xam ne moo leen jur doom yu góor yi ak yu jigéen yi kenn kenn du cëb yaafus bu la neexee nga wàcce ko ci Maam Balla wàcce ko ci mor suñ morante sëli ñëw ci suñ Tuubaa Xaadim Rasuul boo xoolee foofu na xool suñ jamono ni mu tëddee war ngaa xam ne rëpp tiir a ngi am rupture boobu nag mat naa jàngat mat naa bàyyi xel ñun ñëpp ci wut saafara daam mag mu baax mu wax ni billaahi suñ daara ji gis naa ci ab raax boo xam ni suñ jiw yi moo ko nar a raax bu ëllëgee nooy xala jul buuse karaama jeex te raa nga jóg ci suuf si loolu ma Mor Jaara ko kon am na fu mag ñi tegoon seen tànk foo xamante ni ni suñuy jéego mooy na ko loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax nga gis ni kon kii nuy waxtaane ñi ko jaboote tànnal nañ ko barab yi mu feeñe moo xam ci kër ndey la moo xam ci kër baay la te loolu lu mag ñi bàyyi woon xel la moom lañ jiitaloon mag ñi doxuñu rek ba jaboot dab leen ñu jaboot seen jaboot daa am lu ko fonde dañ ci nettali rek ni sëñ Mbusoobe daa jëloon engagement ñaan suñu borom ni li fekk suñu borom nangulu ko doom ju judd doon wàlli du samp kër ndax nun yitte jooja lañ am ndax pas-pas boobu lañ am ndax nun waajal nañ suñu njaboot noonu ndax bu ñu nettali dund mag ñi loolu rek lañ ci jublu waaye du caagi ni su rek waxtaan wi neex na wala waxtaan wi kat am na solo déedéet lan lañ ci mën a jàngate loo xame ne suñ jógee daat cey mën a tàmbali su fekkee loola rëcc na nu fexe ba loola nekk suñuy doom loolu mooy li ci am solo mag ñi fonkoon nañ bu baax a baax ak nawlonte nawlonte ba tax na seen njaboot lépp mboolem fu ñu tànne yi rekk lañ ko teg te sëñ Basiirum sëñ Tuubaa daa wax lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel dañu ku dul sëñ ci ñun soo amee juróomi doom jàpp juróom benn am na ci koo xamante ni bëggu mukk toog ci mbooloo mu wax wut si la ñu ni kii yaa ko jur ndax jikkoom ak melokaanam ba mu koy wax booba xewagut fi mu toll nii la xew nga xam ni kon topp gu nu topp suñu bakkan ak ñàkk gu nu ñàkk bàyyi xel liggéeyub mag ñi topp barke bi rek moo nu yóbbee li nu dal loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye bu ñëwee ci sëñ Modou Khary mooy taxawu gi ko bokk yi taxawu ba mu jàng alxuraan dañ ci bàyyam la jànge nun ñu bari ci ñun xamuñu seeni doom fuñ dale toppatoowuñ sax ba xam xam nañ seen diine wala xamuñu jooju yitte la juñ ci war a mën a jànge ci waxtaan wi mar koo bàyyi xel ndax am na xam-xam wala amul xam-xam fi mu jànge mooy tax nu xam ne am na xam-xam borom daarul mooti gannaaw bi fu mu fi jàngee sëñ ci ndigalul sëñ Tuubaa la fa jànge te sëñ bi du yeble fu dara néwul loolu ab taxawaay la boo xamante ne ni war nañ koo bàyyi xel ndax ndonal sëñ Tuubaa lii ca kanam la jëm te la fi jële mag ñi doonu fi bàyyi yan loxo lañ koy bàyyeel ndax loxo yii ne ci suñu kanam dal na sunum xel wala dalu sunum xel bu nu tënku rek ci liggéey bi sëñ bee ko am na ci loo xam ne suñu loxo la nekk noo ko mën a saytu noo ko mën a sàmm noo ko mën a ñoŋal mu bokk itam ci borom yitte yu kawe yi sëñ Modou Khari ndax jaayante ak sëriñ bi foofu sëriñ bi nekk mu fekk ko fa di wut lu baax loolu itam feeñ na ci biir waxtaan wi te mooy dem gànnaar ak gànnaar ak condition ya fa nekk nañu dimbale nañu dimbale ci wax ji nañu dimbale ngir yàlla jëm Sëriñ Tuubaa ñu diglu nañu dimbale ngir yàlla ñu diglu gànnaar sëriñ bi daa tegoon ay condition sëriñ bi daa waxoon ni képp koo xam ne mënul liggéeyu góor mënul alxuraan bu ma fekk gànnaar koo dégg ñu ne dem na gànnaar waxuma yitteem de waxuma pas-pasam waaye na la wóor ni alxuraan ju wér cëng moo nekk ci moom ak ngóor itam moo nekk ci moom su alxuraan ne minal mu'minina rijaalun booba nga war a jàngat léegi lan la kon waxuñu melokaan yi rek nga xam ne moom la suñ borom melal ci bind waaye yitte moo tax ñuy wax yitte ju kawe yitte ji sëñ Tuubaa doon woote rabbi asaabaka bil himma foofu lañ ko wuyoo sëriñ bi diggam ak yonente bi ci zahir ci ay at sore na 1272 wala 71 ñenn ñi di 70 la sëriñ bi ñëw jamono nga xamante ne ni diggam ak yonente bi junni at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk daanaka sëriñ bi door a ñëw mbooloo moo xam ne bañ fi jaaree ak léegi nag diggante boobu toll na ni ci at nga takk sa ndigg laxasaayu ni ñoom laa bëgg a dabi yittee koy def ju waaye diggante bu néew la dox ni sahidallahu bi anni waahidun min ahli badrin dab naa groupe ba maa ci biir loolu yitte la yitte jooju nag ci la àndoon ak mag ñi moo tax fu mu mosane mag ñi fekk ko gànnaar ak lam doon tar-tar ak lam doon jaxasoo jaxasoo ak lam doon metti metti téewut mag ñi muñ nañ ko muñ nañ ko muy xiif mar rafle tàngoor wu amutub ab désert bu yaatu coow la bu du dakk loolu rekk fa newoon te ki nekkaloon doon ku mën a yar ku mën a tege ci aw yoon tar lool itam nag doon ci feeñ doon naa ko nettali bërki démb rekk ci gànnaar dañ laa mag moo xam ne dañu tey ku fexe ba ma regg danaa faj sa aajo kon nga xam ne xiif bu metti na ma neen mag ni ko tey faj aajo jëfewu fi rekk a fi jafe waaye faj aajo moom jafewu fi loolu day xamal ne gànnaar taroon na te ka fa nekkoon ci ci wàllu yàlla jeexalul dara waaye saayir si moom lu bari néewu fa te jubluwu ci woon dara lu dul yaral mag ñi tàggatal leen seen bakkan ngir ñu bañ a tarxiis ndax rekk régler daa yombul foofu yi ci gànnaar nga xam ne tase na fa ak signal li mbay kor coro sëñ gànna wax na ko ba sëñ bi dina wax ne ahmadani muridani saadixani loolu du lu yomb sëriñ bi daawu ko wax ñépp léegi la murid saadix bari léegi la baat boobu bari lool late ñu di ko joll mbeeru di ko joxlonte mel na ay ndabi teraanga yu ñuy joxante te noonu ñi koy wax ak keñ koy wax kenn gëmu ko ci ak ñi koy dégg waaye baat bi late na ci sunu làmmiñ te it du du lu simple misaal bi ñu ci joxe sëñ Mbàkke Madina bi mu jàngee ba pare sëñ Moussa dañu ko demal seeti sa maam suñ daam nee na mu bi mu demee suñ daam bi waxtaan ak moom ni ko maam yi nga am maa ci gën a yafuus maam yi nga am maa ci gën a yafuus daal ni ko sëriñ mu ni ko mbàkke mu ni ko sa maam moo ma wax ni ma ci laa bokk murit saadix laa dana sëñ bàkk man na tekk mu ni ko sa maam moo ma wax ni ma murit saadix la waaye yëguma ko ci saa bopp de nga xool mag ñi sëriñ yi ñu amoon ni mu réyee waaye nee na yëgu ko ci boppam ne sëñ Mbàkke Madina daal di tuur ay ronkoñ sëggi nee na sëñ daam ne ko sëriñ sa maam moo wax ne moom moo di saa def lu ñuy dimbale nit la waaye kenn mënu koo liggéey nee ne ko sëñ Tuubaa moo wax ni moom moo di saa def ëllëg yomal xeex mën naa dër ñaari tànkam bii mu teg ko bu buntu àjjana bii mu teg ko buntu sawar ña suñ borom àtte ba ñu war a dem sawaral su ko neexee tibb ca lu ko soob sànni leen àjjana suñ borom du ko laaj lu tax ñoo waroon a dem àjjana bu neexoon suñ bu ko neexoon mu tibb ci sànni sawar suñu borom du ko laaj lu tax nee ni ko sëriñ mu ni ko mbàkke mu ni ko sa maam nee na mboot ma ñuy boote wàlli yu kamaal buñ ci bootoon murid saarix balaa yor yoor mbootu ma dagg ndax attunu kon ku sëñ Tuubaa seete sax murid saarix kooku la nen la boo bi mu indee gaal gi jële ko darul man naan ñëw indi ko Murtani gànnaar te yenn ku dellu bopp ba topp ja bismillahi rahmaani rahim jooj yi mu doon wax bismillahi jooj yi mu wax bu ñu yenn ko loolu dafa ñor sëñ Tuubaa lool moo tax sëñ bi ne ko may naa la mbootum bismillahi rahmaani rahim te mbootum bismillahi rahmaani rahim sëñ Tuubaa dañuy tajlubu kulla xayrin wa tadfa'u kulla dayrin kon lépp nga ci lépp nga ci loolu ca nga ñuy xamee rek yarub sëñ bi loolu pas-pas la yitte la ju kawe daje na fa ak sëñ Modou Diaw loolu suñ gànna wax na ko foofa itam la amee ndigalul dem ci suñ daaru Xasan Njaay loolu itam da nga ci mën a natt rek di nga xamante ni ñooñ yi mu taseel ca barab ba ak ñooñ yi ko sëñ bi boole loon al arwaax junoodun mu jànn da ñooña la méngool ci ab taxawaay yooyu yëpp ay taxawaay la yoo xamante ne ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax ngir njaboot gi di ko fàttali ko ndax mag ñi kat ñooy suñuy nawle buñ ñu gënee ëpp luñ cër jiitu ñi itam nag ñooy sunuy nawle te as gor ab nawlem du defar mu yàq kon war na noo laxasaayuwaat bu baax a baax sàmmal mag ñi seen ndono te dara duñu ko may lu dul boole sunu bopp takk ko mu doon wenn say kër goo fi mën a dem benn cër fa ne muy cërub Sëñ Tuubaa fa mboolem ñi aju ca kër ga ñëpp ca benn cër boobee la ñam waaye am na lu bon lu xew muy farfarloo ak xàjjale yëkkati nit ak daaneel benn famille nga bëgg caa jël nit def ko xut bu samaan ña ci des nga bëgg leen def përëm teñ bokk benn benn mbanaguñ tibbee loolu mënta nekk te loolu mu ngi xew te bari na ci loo xamante ni nag ñi jiitu ñoo koy maye bunt bi baneen yi ci des ñuy toppee ñoo koy def sëñ Mbàkke Soxna daa wax ne ki la jox boppam di la jox alalam jëli doomam jox la di la lëggéeyal néew na mu wéet ak yow wax la dara te ko waaye nee na ñi ci ëpp ñu dëgg loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax nanu delloo sëñ bi njukkal sàmm li mu nu bàyyee sàmm gi mooy nu boole sunu bopp ka war a jiitu jiitu ña ca war a topp topp yàlla noppi na yàlla noppi na suñ ko gëmee loolu mooy li am suñ ko gëmutit kur-kur ji dafay bari waaye dara du sotti dafa am benn waay bu boo xam ne dafa doon wax rek bu voyage la doon def ndakaaru gii la jëmoon bi mu ñëwee ba Thiès ab accident xew ñu baare circulation bi oto dematut oto dikkatut ne toogaay bi yàgg ma wàcc di dox ak sama tànk ma gis jalaal nee na mu yéem ma loolu ndax tànk yu bari ndax musuma koo gis nee ma topp ko ci territoire bi di ko xool territoire bi féete ndi jor ne ba mu yàgg jalaal ji jéggi tëli bi tëli autoroute Dakar Thiès bi jéggi tëli bi ba ca territoire bee féete càmmoñ nee ma topp ko rek ba jalaal ji for aw sax moom tawxiit la ci amee nee na kon soog bi li tax suñu borom def ko ma min daabatin fil ard illa ala allahi rizquha moo tax suñu borom def soog bopp yi ndax sax wi wërsëgu jalaal ji la faawu jalaal ji dana ko lekk te li fekk oto yaa ngi dem ak dikk moom jalaal ji mënta jéggi tali bi suñu borom créé accident tëral bakkan yu bare bari ngir jalaal joo ji for sax woo wi suñu borom confirmé li waxoon yàlla li wax du dañ te noppi na kon lu des ci ñun la desee mag ñi wan nu aw yoon wan nañu résultat bu concret boo xamante ni ni dañ caa teg loxo teg ci bët te jëmm ji ñuy waxtaane wane na ko adduna nag dadul dadul kërug fayukaay moo tax cër yi du feeñ waaye ëllëg la fii moom du këru fayukaay dara du fi sotte kum neex nga ni may ñooyu xare wi kum neex nga ni murit saadix la kum neex nga ni taalibeb sëñ Tuubaa la kum neex nga ni sëñ bi laa àndal aw làmmiñ rek ku koy wax te kenn du ko weddi waaye tame bi koy lay moom mooy bàmmeel la nuy tàggale mag ñi looloo taxoon seenub liggéey moo doon tatajaafa junubuhum anil madaaji wa mimma razaqnahum yunfiqun jaamu yàlla rek moo doon seen liggéey ak liggéey joxe mosuñoo soxla dara liñ fi am a akas néew seenug farlu ak seenug dégg jamono moo tax te ba léegi dabaguñ leen te ba jamono naqare lañ ko doon benn rek darul xit maa ngi nii mboolem ñi aju sëñ Modou Khary ñëpp bu fekkoon suuf sa dañ koy jaay buñ dajalee seen i bee mënuñu koo jënd te ba jamono naqaree la ko sëñ Modou Khary defaroon te yàqulu ko woon dara nag ci diggam ak ki bokkam yàqulu ko woon dara ci leen war a liggéey te valeur la boo xamante ni fi mu ne nii kenn mënu koo xayma kon mag ñi xamoon nañ àdduna waaye ñàkk solo gi moo taxoon ñu ñu bakkoo yëlëb ci seen loxo la leen sëñ Tuubaa waxoon rek loolu lañ def mooy na ngeen wàcc lal yi te sañ ci der yi te muñ nelaw yi ba dem ci biir bàmmeel yi su ngeen demee ci bàmmeel lu ngeen bëgg a tëdd na ko tëdd ab tëraay nga ca kanam da nga tëdd ba tëdd loo bëgg tëdd waaye mag ñi daal bind lañ yoo xamante dañ leen war di nafar bés bi set di leen waxtaane di leen fàttaliku dana tax njaboot gi xam fu ñuy teg seen tànk dana tax itam nit ñi gën a laxasaay yu gën a jëm ci lu baax ndax jamono ji dafa rëb rëbaay boo xamante ni ni fi mu toll nii génn ci yombul ndax am na ñoo xamante ni lu ñu baax baax mënuñoo dab seen i bokk ci ak baax kooku lu ñu la tagg doyut loo baax doyut am ñoo xam ne nuñ mën a mel ñoo tane seen i bokk te ñooñu nag dañoo jaxasoo fi mu doon ni léeg-léeg nga jiitlante koo xamante ni nu mu mën a mel moo tax nay bokkam ngay roy ci moom bés bi seen ñu xas la nga naan dañ maa bañ ak dañ maa siiñ ak dañ maa nàngam fekk ki nga def royukaay du sa référence te moom la sëñ Gana doon wax fii sànq rek la suñ Moussa Ka doon wax foofu la jamono toll nee na ñu desoon gannaaw fi mu doon ni ñoo jiitu di yaale moo tax yoon wi doxe ni mu doxe parce que yoon wi bu fekkente ni dañoo dem ba yàgg ñu ni wàññiku leen ñu jiitu woon léegi ñooy des ginnaaw te loolu moo xew yu bees yu baree bari yoo xamante ne ni fent nañ ko ci yoon wi yu bees yu baree bari yoo xamante ni nii raj-raj loo ba boo demee gone yi ak jigéen ñi te jëmuñu fenn te kenn du wax kon ñi yor dëgg léegi lan lañu fiy jariñetti su fekkee ñemeetu ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ndax boo waxee ñu ni léegi a ah, moom kat day yëkkati seen kër wala nii lay defe nii lay defee ku am lu jar yëkkati yëkkati ko ba nit ñi séen ko ndegam ñi yoru fenn ñoo koy awt awte fenn fu ci nekk ba yor mbooloo mu dul jeex moo xamante ni jëmuñu fenn yow ma yor lu mën a xettali nit àdduna ak àllaaxira am nga responsabilité ci yëkkati ak feeñal ak fësal ni leen mi ngi nii loolu suñuy loxo la ko suñu borom bàyyi noo ci war a góor góorlu bu baax a baax loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax waxtaan wi daal am na solo am solo goo xamante ni bind ci nekk yu bare bari yu jar jàngat waaye nañ ko jariñoo te bañ koo yéem buñ ne rek sañ moo Khary jàmbaar la jàmbaar la waaye continuité daa war a am mbiram wër tege ci suuf waaye nun ñu ko yor ñoo koy valoriser ba man koo jariñoo noo koy wan waa àdduna ban man koo jariñoo seytaane nag dafa dafa efficace te mën a yàq day fexe ba nga xamante ni ni ñi yor kàddu gi léegi ñoom la ñuy déglu ñu waroon a wax ñépp noppiloo nañ leen dañuy iblis daa gis kuy julli gis kuy kuy nelaw mu yor wantaayam di upp kiy nelaw am ci nit yàlla yi koo gis ni ko yaa bari caaxaan kii ngi nelaw nga di ko upp te amoo soxla ci kiy julli mu ni ko noppil li may def dara nga ci xamul kii di julli julli gi yàqu na bu yàgg waaye mënu koo defar kii di nelaw nag boroom xam-xam la te bu yeewoo julli gi baax moom lay upp bëgg mu yàmbor foofu la àdduna toll ci ak yàq moo tax kilifa yi am nañu responsabilité bu baax a baax ci nii njaboot gi mel nañu wax ak nit ñi noo ngi wàcc foofu sunu kàddu noo ngi jéggalu bu baax a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.